bisimila mbokk internet ci dal leen ak jàmm siw du jàmmi borom waaye itam tombe warala ay gaaf le prince faramaren di Wally Ballago Seck limati nanu turam ci mbirum sàccum woto woykat bii di Wally Seck golden boy de la musique sénégalaise taxalaat nañu ko beneen yoon ci mbirum trafic international de vol de voiture de luxe maanaam sàccum oto yu bakkane ca bitim réew bile xibaar waa ECHO ñoo ko siiwala ci talaata ji ku ñuy wax Ousmane Ndiaye moo taxal tuuma wax ne dañu sàcc ab Audi RS6 daamar bu bakkane dal di ko koy jaay ci njëgu ñaar fukki million yu tegal juróom-ñett wecceeku ga ma nga xew ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerum juin gi ñu génn ca këram ga ca Ngor Almadi googule daamar bu faramaaren bi di Wally sekk jënd ab oto la boo xamante ni ña ngi ko sàccee ca France dëkk bu ñuy wax Nanterre doomu Papa Thione ji wuy dina waa dik waaw waa division des investigations criminelles déglu nañu kile di Wally Seck waaye lam leen wax mooy moom Wally Balago Seck jëndul jaayul dañu ko jëloon rek ngir seede ka jënd woto wa ab xaritam la bu ñuy woowee Mooba Ba ñu gën koo xam ci Paco Wally waaye moom Paco Wally mel na ne ci ay kàddoom dafa gën a dugal kiile di Ousmane Ndiaye mi nga xamante ne moo joxoñoon baaraamu tuuma Wally Seck ndax Paco Wally nee na Ousmane Ndiaye ci jëmmi boppam moom moo ko proposé ngir mu jënd gile woto di ab Audi RS6 ci njëgu ñaar fukk ak million ngir gën a dëggal ay kàddoom kiile di Paco Wally nekk ab gérant parking auto dafa ab plante contre ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ndiaye mi joxoñoon baaram tuuma kii di Wally Seck ci njëndum oto goo xamante ne nii dañu ko sàcc fi mu toll nii waa Interpol ak waa dikk ñi ngi wéyal enquête bi ci fàttali laata bile yoon ki lay di Wally Seck joxoñoon dañ ko fi baaraamu tuuma ci ab sàcc bu woto BMW ca France Lyon googu la tuuma mi ngi xewoon ca atuma 2013 ki lay di Wally Ballago Seck jëndoon woto woowu wax ne dañu ko sàcc ci ab commerçant mauritanien ci njëgu fukki million ak ñeent googule woto nag piste giñ ko piste woon yoon policier Interpol yu Lyon topp lanket bi ba dal di yegsi ci Wally Seck